lingeeru Sénégal yépp surtout ñi nga xam ni ñom ñoo bok ci Mojib mi mouvement jigéenu Pastef bu Sénégal ma ngi nuyu ñépp di dañ jox seen euh di nuyu aussi euh, réseau des femmes enseignantes du Sénégal yépp ma ngi leen di jox seen way particulièrement réseau des femmes enseignantes bu Kaolack euh, madame la ministre ma ngi leen nuyu benen yoon euh, néwon na la ni ci liggéeyu commission yi kené centre polyvalent imam Hassan Cissé bu nek Sing Sing kaolak dafa nek centre de redressement des enfants yi nga xam dañu am nek en difficulté avec la société euh, ñu bëggone vraiment gën leen jappalé gën leen a parce que mu nga fa mais doole ji dafa xaw a lool nga japp ci bu baax madame le ministre euh, leneen li aussi pouponnière bu Lamine Coulibaly bu Bongré euh, si location lañu nek des fois nit ñi ñoo ci japp

accompagner les, ba ci ay métiers ba suñu gagnons, ñu mun a mun a mun a euh, société bi te duñu am problème euh, bu loolu weesoo aussi madame la ministre ñu lay wax ne tamit euh, à Kaolak, am na jigéen ñi jàmbaare nañ bëgg nañ liggéey lool sax ñu lay ñaan nga gën a multiplier li nga xam ne moom mooy les financements nga accompagner leen bu baax a baax tamit jàppale leen ci ay formation ndax boo xoolee zone boobu c'est le bassin arachidier dañuy transformer produit local lu ci mel ni gerté lu yóbbu def ko diwlin amna na yo xamné ci loolu lañuy yëngu euh, dañuy transformer li nga xamné mom moy euh, les céréales vraiment ngeen jappalé len bu baax accompagner len bu baax dañ la koy demander aussi li nga xamné tamit mom moy euh, toujours les les daara moderne madame la ministre ngeen ngeen si jàpp si département de Kaolack ndax ku ne département de Kaolack ne diine te yemalewuñ si biir commune bi mais si département bi yëpp fu fit nga jàpp si bu baax en tant que ni ko maam ja tata maam jaara waxee léegi yow yaay yaayu ñëpp leneen ni aussi crèche dafa nekk loo xam ne ni bëriwul Kaolack famille dañuy xey bëgg liggéey mais dañuy am problème xam fan la ñuy yóbbu seeni doom pour liggéey muy jafé jafe goo xam ne nii jàngalekat yi surtout jigéenu jàngalekat kat ak jigéen ñi nga xam dañuy xey feneen dañuy am problème boobu noonu à chaque fois ñuy bëgg vraiment nga nga nga jàpp si bu baax leneen li aussi euh, wax bàyyi wol waxoon naa la tamit nga bàyyi si xel bu baax mooy xale yi nga xam ne ñu ngi si école yi mais dañu bokk si famille yoo xam ne nii dañu xaw a seen doole dafa xaw a néew dañuy ñëw classe mais dañuy am problème parce que soit dañuy indalé xif ba duñ mëna concentré wu soit dañuy indalé fièvre ba duñ mëna concentré wu ñu bëggone euh, amna programme bo xamna ni l'ancien maire de Dakar defon nako fi moy mooy le à l'école ñu bëggone bu féké mën ngeen ñu waat surtout nak si euh, euh, primaire bi nga jappalé leen si bu baaxa baaxa baax baax je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole.